wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wa jacal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraa'i rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi baaxoo ànd ak ñun ci fii ci Touba Argentine TV ajjuma gu jot ñoo ngi leen nuyoo ci nuyoo bu tedd boobu nuyoo bu lislaam di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaan képp koo xam ne ni yaa ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan sunu nuyoo fekk la ci jàmm te sunu nuyoo bu agsee ci yow fekk la ci jàmm mu dolle jàmm ñi ngi jiital ci nuyoo bi nag eh, saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam li di ko ñaanal yàlla mu gën ko fee yàggal lool te gën koo dolli ak wér di ko ñaanal mboolem kilifay diine yi di ko ñaanal mboolem taalibe yi di ko ñaanal mbooleem julli di ñiit képp koy wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rek wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi lay ñaanal yàlla su borom sunu nuyoo fekk la ci jàmm te yàlla dool la jàmm yàlla su borom gën a dollee boole jullit ñi ñu ngi koy ñaanale baax a baax xoli jullit ñi yàlla ko yàlla bennale ni mu bennalee ni mu ni mu leen e, boolee ci baatu bu ñuy waxandoo laa ilaha illallah jàpp na yàlla rek kenn yàlla ko boolee seen xol yi te jële ak wuute ñu ngi koy ñaanal ñëpp ñu di ko ñaanal lislaam ndax loolu bu amee rek ndam ndam lay ndam lay doon ci lislaam di beral ab nuyoo mbokki taalibe yi nekk fii ci réewum Argentine di jël nuyoo bi rek xanaa di ko tekk ci loxoom jëwrin sëñ Mor Talla Sall mu jot li ñu ko mbooleem mbokki taalibe yi di nuyu mbooleem mbokki taalibe yi nga xam te ni wax dëgg yàlla ci barab yu feccante ñu ngi ñuy euh, topp waxtaan wi waxtu wuñ noppee ci émission rek ñu def seen i ak di yónnee seen i message di rafetlu waxtaan wi xam naa ab soññi lay doon rek ci ñun ndeysaan dañoo yéen lu baax rek ndax am na nit ñoo xam te ni wax dëgg yàlla bu ñu jàkkaarloo sa jëmm ji dañuy eh, day yéene loo wax rek mu doon loo xam ni ndam lay doon ci yow nit ki bu la yéene aw yiw noonu lay noon noonu lay noonu lay noonu lay doxale boo jëfee it mu mu mu mu am yéene lool jëf ji baax lool ba nga xam ne sa sa ndam lay doon nit yéene eh, lu baax bokk na ci mandarga yi eh, xam ne nit ki lay yéene lu baax loolu maanaam day bëgg say wax doon wax joo xam ne nii ju àdduna di ndamoo lay doon say jëf yi di doon jëf joo xam ne nii su àdduna sépp di ndamoo lay doon. yàlla na yàlla suñu borom suñu borom barkeel suñu làmmiñ ba lépp lu ñu wax mu doon loo xam te ni luy mën a jariñ la te yàlla suñu borom musal ñu ci accident yi wax ndax accident bi gën a garaaw ci accident yi mooy accident woo xam te ni accident wu làmmiñ la ndax maanaam nit ki bu accident ci jëmm nii man na ko yóbbu hôpital faj ko waaye nag aw làmmiñ moom bis bu accident moom la muy la muy la muy la muy rey day bari xol yu baree bari da ko da koy da koy rey day méttital métti xol métti yoo xam te ni moom euh, làmmiñ wa ko def mënu mënu koo euh, rattrapé mënu koo dabaat dabaatal xanaa ci nuyu bi ñu nuyu mbokk taalibe yi fii ci Argentine rek ñi ki e, yeesal woote bi nga xam te ni waa daayira euh, fédération bi ñu ngi koy woote ci waajal addiya ji nga xam te ni baaxoo nañ di ko yóbbu ci sëñ Muntaxa at mu jot te ñu nekk ci wattaaw yi waxtu ñu ngi daan def sax nee weesu nañ weesu na waaye ñu nekk ci wattaaw yi di soññ mbooleem mbokki taalibe yi képp koo xam te ni am nga yéene jàkkaarloog sëñ Muntaxa rek yëkkati sa àddee jox ko boo ko jaaralee ci eh, fédération bi nga xam ne sëñ Mor Talla Sall mooy jëwriñ ja incha allahu àddee jooju dana dem ba sëñ Muntaxa te bu xasee àgg ci ay loxoom sa jaan wàcc na kon ñu ngi ci yeesal eh, woote boobu di ci soññ mbooleem mbokki taalibe yi yëpp tabaarkàlla eh, xam ngeen ne àjjuma gi weesu doon nañu waxtaanee li jëm ci. li ñuy tuddee mbëkk mi mbëkk mi xam naa ne gis naa benn mbokkum taalibe mu ne Sénégal ñetti jafe-jafe la am muy mbas mi mbëkk mi ak yi waaye ñetti jafe-jafe yooyu euh, ñetti tur yooyu dañoo dañoo niroo waaye lu lu wér la mbas mi jafe-jafe la wax daanaka doonatul jafe-jafe sax muy muy euh, coronavirus bi daanaka wax dëgg yàlla xawees na ko maîtriser ñu ngi ñaan yàlla su borom mu jeexal ko fa ci réew ma te jeexal ko ci mboolem àdduna bi. Euh, waaye bokk na ci beneen jafe-jafe bi mi nga xam te ni maanam daanaka ngelaw la loo xam te ni léeg day dal leen mu upp upp bu am doole muy mbëkk mi te jamono jii mu mu mu am doole lool ngelaw li muy euh, upp euh, bakkan yu baree bari rot ci ci fan yii ñu génne daanaka bi ñu génnee màggal gi léegi ñu ngi koy xayma ci diggante daanaka lu jege juróomi téeméeri doomu aadama wala lu ko ëpp ci liñ tëkk man ko man ko mën ko xam. ajjuma gi sa doon nañ ci waxtaan waxtaan yoo xam te ni xëy na nañ ci ci e, responsabilité e, yi nga xam te ni maanaam e, yu partagé la nga xam ne yu séddoo yu séddoo la te xam naa ne kenn ëppale wu ci nguurug Sénégal kenn ëppale wu ci nguurug Sénégal Sénégal mbokk yi du réew mu rëy rëy du réew mu population bu bari lool ñu ngi koy xayma ci diggante fukki million ak juróom wala fukki million fukki million juróom benn te koom ma wax dëgg yàlla richesse ba nga xam te ni moo nekk ci biir réew ma ña jiite réew ma bu ñu rafetaloon euh, téye gën téye nguur ga ak respecté population bi wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xam te ni euh, doomi réew ma mënoon nañu noppaloo lool ndax am réew bu amee ressource ressource naturelle loo xam te ni xëy na maanaam euh, ci suuf su lay jógee am ressource humaine nga xam ne am. am am ay ndaw yoo xam ne ni yu nangoo liggéey la ndax xam naa ne man euh, àddina bi nii waa nga gis fii ku ëpp volonté liggéey euh, doomu doomu sénégalais ku gën a bëgg liggéey doomu sénégalais yi wax dëgg yàlla nii waa nga gis ko ci àddina bi Séné doomu sénégalais ku bëgg liggéey ku bëgg njàmbarte la maanaam wax dëgg yàlla euh, ku ci amul liggéey sax da ngay gis ni muy xate nga xam ne du du du du am du xàppe loolu ñu wax xàppe du du du du ko dal kon loolu lépp day wane euh, seenu bëgg liggéey waaye nguur Sénégal dafa doon nguur goo xam te ni daanaka euh, nañuy tëyee réew ma man dama naan sax xëy na buñ bu heure bi fekkoon euh, senegal nekkoon ci loxo yi tubaab yi sax daanaka ci la réew ma di gën a avancé ci ci ci côté ci côté ci côté da nga ci côté économique waxumal ci côté spirituel nga xam ne am wàllu diine ji ak it wàll wàll wàll googu ndax tubaab yi moom. Euh, réew bu ñu jiite duñ bëgg wàll ko am am fa am am fa am doole donte sénégalais yi yàlla dimbale ne ko ba nga xam ne wax dëgg yàlla moom dañoo gëm seen diine euh, waaye gëm diine googu it mbokk yi lu mat a bàyyi xel la ndax gëm diine googu ak gëm yàlla googu nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ci doomi sénégalais yi wax nañ ne ay jullit lañ jullit googu war naa war na di gën a fees war na di gën a feeñ fu ñu mën di toll. Euh, ndax ak jullit war na di toll di toog ba yàgg mu laaj ay mu laaj boppam ay laaj war nga di toog ba yàgg nga laaj sa bopp ab laaj laaj bi bi nga bi nga laaj bi nga war a laaj sa bopp mooy yow ndax ab jullit nga xool ndax liy wane na ab jullit ab jullit nga lépp mi ngi ci yow boo bu dee waaw wala déet yaa ko gën a xam ku dul yow ginnaaw yàlla boo ko xamee nag nga xam ni yow àdduna bii nga nekk. mission moo la fi andi nga laaj mission boobu ndax yaa ngi ci mission bi la andi ci àdduna ginnaaw bi nga doonee ab jullit mooy lan mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ab jullit moom jaamu yàlla moo ko andi ci àdduna wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduni jaamu yàlla rek moo indi ab jullit ci àdduna bis bu noppee jaamu yàlla rek defatu fi dara defatu fi dara kon laaj boobu it lu mu ab jullit war di laaj boppam la fu mu fu mu toll ñu ngi sant bu baax sëñ eh, Abdoulaye Bamba Sarr démb gi mu def ci waxtaan woo xam ne nii xëy na ci xaw na ci yaatal loolu wax dëgg yàlla tamit eh, en général lañu lañu la wax sax dañuy nelawal seen eh, doomi réew yi te bëgguñu ñu ñu ñu ñu yeewu ba ba ba faaw bëgguñu ñu yeewu bëgguñu bëgguñu ñu ñu xam li xew ndax bu ñu xamee li xew lu ne bu nekk rek. maanaam ay yet lañ leen lañ leen lañ leen fay jële fa nekk fa ñu nekk lañ leen fay jële fa ñu nekk te àdduna bi ci boppam day doxe doxin woo xam te ak naa feq dafay yaatu lool ak naa feq dafay lool ndax bokk na ci li nga xam te nii ñu yaakaar ne dañoo xam sax dañ ko dañ ko dañ ko dañ koo réeree muy euh, réew mu demee na Sénégal nguurug Sénégal ga damay damay damay doxe te loolu loolu nit di lu ñu war a xam la lu ñu war a xam la ndax bu ñu nee réewum démocratie te démocratie mooy peuple bi ñooy àtte seen bopp euh, kon yu bare bare bare yoo xam te ni tey jii ñu ngi koy àtte àtte population bi te muy jóge te muy àtte bi di jóge ci population bi waru fa woon a am ndax réewum jullit ab jullit ci ci ci àtte bi lislaam la war a àtte woo te bari na yun yun yun euh, nangu ñu ñu cee àtte. te ñun peuple bi ñoo ko woote ci eh, jaarale ko ci référendum wala ñu jaarale ko ci eh, député yi nga xam ne ñoo ñu toogal assemblée national ñu jox ko attekat yi ñu ñuy atte te bu ñu attee ba noppi ñu nekk fa di di di xul di xul di mer te fekk yow li li ñu lay attee yow yaa ko nangu kenn ku nekk rek eh, dem nga woote ji référendum wala toog nga si kër te boo waree def dara wala nga war a wax dara boo waxul. daanaka moom wax ja ñoo ñoo ñoo ñooy ñooy bokk ba àtte boo waroon a woote ji te woote ji woo boo tegee sa kër woote ji woo yàq yàq woote eh, ànd ca la ñuy wooteloo yéen yéen yéen yéen yéen a yem kon bari na àtte yu bari yoo xam te ni xëy na nit ñi bu ñu xamoon li xew danañ dàq Sénégal danañ ko fa jëlee Sénégal te bari loo xam ne nii depuis bu yàgg bu yàgg loolu depuis si eh, jamono sëñ eh, El Hadj Abdou Aziz sëñ Cheikh Gaynde Fatma. Euh, ay loi yoo xam te ni ñu ngi ko bëggoon dugal ci euh, constitution Sénégal ngir doomi diine yi doomi doomi diine yi euh, di ci ateo ba fi ne nii état yi fi romb yépp benn état nangu nangu nangu ko dugal ci constitution Sénégal loolu ñàkk xam li xew bokk na ci li ko waral bokk na ci li ko waral bokk na ci li ko waral loolu nag bu bu nit ki boo fekkee yow da ngaa xamul li xew te ñu nekk ci kaw bëgguñ nga xam li xew boobaa. ñu nekk ci kaw euh, wax dëgg yàlla ni niñ koy waxee euh, golo di bay xaw ma ni nu ko misaalam wax wala fu waxee di sax waaye baabun di dunde golo di bay baabun di di dunde daf mel ne noonu la waaye euh, doomi Sénégal yi ni ñuy souffrir ak ni ñuy sonne ci biir Sénégal waxuma la biir waaye bu ñu génnee Sénégal bu ñu def bu ñu euh, defee seen effort ba génn biir Sénégal sax bitim Sénégal bitim réew tukkikat yëpp doomi Sénégalais yi bokk nañ ci ñi ñi fi ñi fi ñi fi gën a sonn ci bitim ci bitim réew te dara wëralu ko it lu dul sàggane gu leen njiit ya leen jiite ci biir Sénégal sàggane loolu moom wax dëgg yàlla euh, ñëpp seetlu seet seetlu seetlu nañ ko waaye nag euh, mbokk yi dafa am loo xam ci nii nit ki bu ko nangoo rek teg ko ko day daal di dagan ndax gis nañ fi ba tàyyi nit yàgg sonal nit lool te bu ëllëgee bu la wooyee nga dem wuy nga dem wuyu ji ko lu mu sàkk ci yow nga nga nga nga nga nga nangul ko ko loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la ñu ngi ñaaw lu baax a baax yi wax dëgg yàlla yi fi xewoon tey eh, ci diine ji eh, diine lislaam wax dëgg yàlla waxtaan nañ ko ci waxtaan yi paas yi weesu eh, ñaawal gi nga xam ni ñu ngi ko doon ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te samedi bii passé le sept bi passé waa Sénégal amaloon ci taxawaay bu am solo defoon manifestation bu rëy ca euh, ca Ndakaaru ak ci biir Sénégal ñu ngi koy rafet lu baax loolu lu am solo la ndax dañuy wane ne réew mi réewum jullit la te information yooyu dana àgg ci euh, euh, bari nañ ñoo xam te ni àdduna bi ñoo xam te ni xamuñ ne sax Sénégal bokk na ci réew réew réewu jullit yi waaye information yooyu ba fi ni nii bari na àgg foo xam te ni loolu dafa dafa dafa àgg ñu ngi koy rafet lu baax de tey ñaan yàlla suñu borom sàmm euh, sàmm diine diine lislaam ñi sàmm ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ lislaam ba tey euh, di wax it ci mbirum immigration euh, clandestine bi ñu doon waxtaanee nit ñi nañ bàyyi xel bu baax baax li ñu wax man dégg naa kilifa gu mag ca senegal koo xam ne wax dëgg yàlla ci tarixa bu ràññee ko la bokk mu wax ci wax joo xam ne wax dëgg yàlla man jëpp ma ne wax ja ndax dégg naa ko mu wax ne. Euh, xale yi dee dee ci géej gi te doon dem Espagne ay martyr lañ mooy ay ay shuhadaa lañ ñoo xam ne nii dañoo dee ci xare lañ loolu wax ju rëy la yoo xam ne nii wax dëgg yàlla day mel ne moom day encouragé mboolem sénégalais yi nga xam ne nii ay xale lañ te demaguñ ne leen jël leen jël leen jël leen gaal gi te kilifa bu waxee buy waxee bu nekk rek war naa seetlu ay waxam war warut doon wax joo xam ne nii nit ki mën na cee jaare jàpp ne maanaam bu àggee Espagne. mën naa am àdduna bu bu dee ci ndox mi moom ku dee ci ku dee ku dee ci ku dee ci xare la loolu lu ma ta bàyyi xel lu ma ta bàyyi ndax nit ki wërta rey boppam yàlla da koy tere wala taqtulu anfusakum wooy jur wërta rey doomam wala taqtulu awlaadakum ab jullit wërta rey moroomum jullitan moroomum jullitam wëru ko rey wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaa'uhu jahannamu te bokk na ci euh, loolu Euh, fekk nit ki loo xam te ni bu ca duggee bakkanam mën na caa des nga di ko nga di nga di ko nga di ko ko digal dafa mel ne kii nga xam ne dafa ñëw euh, di di la ab bu jaas rek mu leer naa naa ñu ne kii jaas ji da bëgg a rey nit nga abal ko abal ko jaas yi kooko kooko da yaa ko yaa ko dimbale ci ja ci rey ga ndax bu du doon jaas yi nga abal mën naa bañ a rey bakkan euh, wax yu ma ta bàyyi xel loo xam te ni wax dëgg yàlla xale yi kenn. Euh, digliwul ne bu kenn tukki déedéet waaye nag jaaruwaay yéen ko war a jaaree nañ ci soññ soññ nit ñi ñu jaare ñu jaare ca ca loolu soññ leen ci gëm yàlla te xam ne wax dëgg yàlla nit ki sa wërsëg loo ko yàkkamti yàkkamti yàkkamti te jot ga euh, ak séegul wax dëgg yàlla du tax nga jox ko nga jot ko te yàlla yàllaa yi séddale wërsëg yi te moo koy def àpp kenn ku nekk euh, fa sa wërsëg war a war a war a war a ñëwee ni koy waxee woon ci imaamu Shafii yi dama ko waxee woon ci tiram wa risquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al-anaa googu euh, wërsëg yéex a ñëw gi mu yéex ñëw ci ci yow taxu ko loolu mënu ko mënu ko mënut tax mu wàññi ko waaye coono ba mën a dajit ngir yàkkamte ko. taxul mu dolli mu mu yokk mu yokk wërsëg wa loolu wax ju mat bàyyi xel la loo xam ne nii ñu ngi ciy bàyyiloo xel ñëpp daal di ñaaw la it wax dëgg yàlla accords yi nga xam te ni nguurug Sénégal def nañ ko ak réew tubaab yi nga xam ne yeneen réew yi euh, yëpp benn defu ko ci maanaam ñiy jaar ci Sénégal yi risque ba àgg euh, Espagne ñu signé ak euh, doomu Espagne réewum Espagne ay accords yoo xam te ni dañuy permettre ñu dellusiwaat xale yooyu. te buñ euh, te accord yooyu ñuy signé ak nguuru Espagne gi nguuru Espagne ak nguuru Europe gi di leen ci fay xaalis boo bu bari boo xam te ni buñ dellu see xale yi dañuy agsi rek ci aéroport bi la ñuy bàyyee ñu delluwaat seen kër duñ am yenn euh, taxaw yoo xam te ni sax ay plan yoo xam te ni nañ ko laal sax ngir jéem leen ci taxawu xaalis boobu ñu jëlee ci réew tubaab yi ñu fa yéene koo delluwaat ci xale yi ko taxaw taxaw na jóg wax dëgg yàlla loolu lu ñuy ñaaw lu ñuy lu ñuy ñaaw la ndax nit ki risque ak dundam. Euh, dem jaar ci ndoxum mi àgg nga lijjanti ci lijjanti gi nga lijjanti ñu war ko dellu si ñu fay la ci xaalis xaalis boobu bu ñëwee war ngaa def ay plan ba nga xam ci nii wax dëgg yàlla euh, dana ci am lu mu dëgërloo dana ci am euh, sax départ boo xam te ne dana ci mën dana ci dana ci mën a liggéey liggéeyaat di ñaawlu bu baax wax dëgg yàlla ñàkk wane benn mandargam ne ñàkk wane gu nguurug senegal ñàkk wane ci benn màndarga ne am nañ naqar. ci xale yi des ci géej gi ndax décrété wuñ benn yoon benn deuil national tey jii sax euh, internautes yi euh, décrété nañ euh, deuil national boo xam ci nii vendredi lañ ajjuma bi moom lañ jagleel sax ñi nga xam ne ni seen bakkan dafa dafa yem ci ndox mi waaye jógewul ci nguuru Sénégal loolu it lees di lees di lees di ñaawlu la amul benn yoon boo xam ci nii xëy na dégle na nan nañ wàccee drapeau yi ngir naqarlu sax ñu seen bakkan yem ci géej ci ndox mi wala yu ne yu benn taxawaay daal benn taxawaay boo xam ne daal siñ bi euh, lu luy signifié lu lu luy signifié luy wane na ñoom jëm jëm jëmmi Sénégal yi lañ lañ toogal foofu ñu toog defuñ ko defuñ defuñ ko ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax wax dëgg yàlla euh, tey bàyyi xel loo bàyyi loo xel Sénégal Sénégal yi daal liy xew liy xew ni ñu ci bàyyi xel ngir bu ëllëgee li ci kanam li ci kanam bu accès bu accès tey ñu xam décision yi ñu jël. ñu xam décision yi jël di bàyyiloo xel wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee woon euh, ci waxtaan wi passé ndax sénégalais moom bari na ci loo xam ci nii mbirum tukki jàngoro yi judduwaale lay doon ci ñun jàngoro yi judduwaale judduwaale lay doon ci ñun man maa ngi fàttali ko jamono yu yàgg euh, génn góor mu nga dëkk ca ginnaaw Misra dëkk bu ñuy wax Touba Kadam dama fa doon jàngale. ndeysaan damaa dem tuuba am takk wu ma woon ñu jox ma fa kilo gura wax dëgg yàlla ma xam ne man daanaka du ma lekkatu gura te xam naa góor gi ci bëgg gura bëgg gura goo xam ci nii man naa ko denc bu may dem yóbbaaleel ko bi ma ko dencee bay dem di yóbbaaleel ko bi ma àggee damaa dem fëgg buntam bi mu génnee sax maanaam namm gi mu namoon gura tax na bët ya bët bët yaa ngi lëndëm ba xàmme xàmme xàmmewu ma mu ne ma kookan dama ne ko man na Moustapha mu nuyu ma ma ma jox ko euh, kilo guro bi kilo guro laa ko jox jamono booba booba waaye dafa kontaan mbégte moo xam te ni ñaan ñaan nga ma ñaanal la muy euh, wane maanaam xam ne ñoom jàpp nañ ne ñii daal li gën a am valeur ci seen àdduna mooy nit ki tukki maanaam tukki la ma ñaanal tukki tukki yàlla na nga dem ci réewum nangam la ma la ma la ma wax xam naa ne réew moom moom. mu gudd wala gàtt moom incha allah bis bis dana ñëw dana fi teg seen tànk ndax googu moom ñaan nga ma ñaanal ci ngoon googu moom gëm naa ne lu yàlla nangu la ci saasa ndax ci xol bi la ko la ko la ko tibbi waaye loolu la nga ciy jàngate rek mooy ne ñii nit ki lim gëm lim gëm yi loolu lañ gëm mag ñii buñ la ñaanal sax yàlla nga màgg ba tukki lañ la la la la la ñaanal jàppuñ ne mën ngaa ñaanal nit ki mu am teraanga te du ko te du ko ja te du ko jaaree ci tukki te du ko jaaree ci tukki loolu bokk na ci li nga xam ne nii euh, yun war a joxañ la ci euh, liy def loo euh, liy def ci xeli nit ñi ne tukki nit ki da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko war a def déglu naa it ndeysaan benn misaal bu ma neex lool lool ndeysaan boo xam ne nii benn waay bu doon góorgóorlu toog amul liggéey mu xëy ne day wuti liggéey dem ci benn société boo xam ne nii wàllum garde ci la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy liggéeyee mu ñëw demandé waa ji ne ko dama bëgg liggéey jox ko CVM waa ne ko da nga ciy def ab email mu ne ko man de amuma email mu ne ko boo amul email moom fii moom doo fi mën a doo liggéey mu daal di bàyyi dem bàyyi wër liggéey bi nag kon dem ubbi bitigam bitigam su ndaw tàmbali dafa yëngatu ndànk-ndànk bi mu tàmbali di yëngatu ndànk-ndànk ci bitig bi bitig bi xaw a avancé ba mu mujj doon bitig bu mag. mu mujj ubbi beneen bitik mu mujj dem ba yor ay place yu baree bari ndeysaan dem ba nga xam te ni nag yi yi ëpp na ko doole sax mënatu koo lijjanti moom dong mu lijjanti mu waxtaan ak benn waay boo xam ci nii da ko war a euh, jël muy liggéey ci wàllu kon euh, comptable comptable lañ ko lañ ko wax nga xam ne wàllu di mu lijjanteeg waajo yi nga xam ne dafa jàng ba yeeyi kii ba yeeyi kii itam euh, te amul liggéey nga xam ne maam euh, diplôme bu nekk am na ko bu dul diplôme ji ne ab comptable la ñëw waa ji jël ko waa ji ne ko euh, comptable ni laaj waa ji ne ko yow léegi da jox sa sa email sa sa adresse email waa ji ne ko man de adresse email amu ko mu ne ko yaa moom société société yi yëpp place yi yëpp yaa ko moom te amoo adresse email yow boo amoon adresse email kon kenn xamul loo loo loo looy doon. waa ji da ko tontu ne ko man bu ma amoon adresse email ab gardien laay doon nga xam ne kon ñàkk am adresse email email gi nga xam ne wane ne moom euh, xarañteem euh, soriwul ci mbiri mbiri àdduna bu ko amoon moom jàpp na ne ab gardien doon te tey jii amu ko mi ngi am lii mu am lépp bay liggéeyloo koo xam te nii maanaam jàng na ba yey ba yey ba yey kayitam loolu lu am lu am solo loolu gëm sa bopp bokk na ci li koy li koy li koy waral bokk na ci li koy waral bokk na ci li koy eh, eh, joxe itam di eh, ñaax mbooleem doomi réew mi rek di xam ne li Sëñ Tuubaa waxoon laa tashtari dunya bi uxraa yaa taa am na loo xam ne nii àdduna jëru ko ndax loo bëgg tedd nga tedd nga na doon loo fekke loo bëgg a teral say waajur na doon loo xam ne nii xëy na da ko fekke it ndax bari na koo xam ne nii doon na wuti. Euh, teraanga ci bitim réew di ko jaarale ci géej gi wax dëgg yàlla ngir ne dafa bëgg a seral xolu waajuram wala dafa bëgg a seral xoli seen i waajur euh, seen seen i seen i waajur mujj ndox yam ci yam ci ndox ma suñ mbokk yi loolu lu ko lu ko lu ko lu ko ëpp lu leen ëpp mettit maanaam seen waajur yooyu li seen seen àdduna sépp bu fekkee seen doom jooju seen doom jooju cofeelu doom mi nga woon ci ñoom li des seen àdduna lépp aw naqara aw naqara lay doon kon lool loolu na si bàyyi xel bu baax a Euh, loolu dafa doon loo xam te dañ koy jëkk ji di ko di ko di ko jiital rek bokk na ci it li li li ñu ko doon waxtaane ma euh, bokk na ci loo xam te ni euh, sunu mbokk yi tukkikat yi ñoo koy yóbbee nit ñi nit ki bari na ci ñoo xam ni ñoo sama classe gi ñoom da wane loo ni xëy na nekkul ci yow wala ngay wane loo xam te ni yoroo ko sax ba tax na daanaka da nga nit ñu bare bari sa comportement boobu mooy changer seen xel it donte changer seen xel mii muy changer seen xel it maanaam euh, xel mu ñàkk gudd bokk na ca ak it bokk na ci li nga xam te ni bokk na ci li ko li ko li ko waral maanaam nit ñi nin nin nin nin nin nin sàgganee euh, valeur bi nga xam te ni maanaam ak ngëm yàlla am na ko ak diine euh, am am na am na ko ngëm yàlla ak am diine. maanaam loolu bu ñuy limaale seen i am-am dañ ko dul limaale loolu moom daanaka bari na ci ñoo xam ci nii sax duñ ko duñ duñ duñ duñ duñ ko limaale te mbokk yi lu waaye mën a am euh, na cay limaale diineem ak ngëm yàllaam ak euh, doon gi mu doon euh, ab jullit te feex googu ne ko nit ku nekk di bàyyi di bàyyi di bàyyi di bàyyi wàlle xel te bari na koo xam ci nii maanaam tukki gëm tukki amee ci tukki ba alali àdduna toogoon Sénégal sax bañ a tukki moo ko moo moo moo moo ko tamee ndax bari nañ ñoo xam te ni biñ biñ génnee Sénégal ba tukki lañ lañ ñemee def loo xam te ni mosuñ koo xalaat def ci mooy yàlla bañ bañ ci bañ ci bañ bañ nekk Sénégal loolu may li may wax moom euh, bu nekk rek teg nga ci sa bët ci ku la jege koo xam koo xam te ni li ko dal ci sax ci mooy yàlla ak nuur ci bàkkaar yu yu yu yu doy waar ku ko yóbbee nga xam ne ba muy nekk Sénégal wax dëgg yàlla xelam mosu koo xalaat ndax. environnement ba mu nekkoon dañ ko dund maam amul kenn doo fa dund dund dund euh, yu ni mel bari na ci tey jii koo xam ci ni bi mu génnee Sénégal la tàggoog xelam bari na ci ñoo xam ci ni tey jii boo leen fekkee ci bitim réew àndatuñoo ak seen xel nañu àndewoon ak seen xel bi ñu nekk bi ñu bi ñu nekk bi ñu nekk Sénégal donte lépp it ci ndogalul yàlla la ak ci lu yàlla bind ba noppi waaye nag nit ku nekk rek war na ci war na war di ci di ci bàyyi xel. di ci bàyyi xel te xam ne wax dëgg yàlla yàlla lu mu bind ci sa dund gi moom maanaam bu accès maanaam effort yooyu ci def lu mu néew néew rek loolu day daal day day daal day daal di sotti lu yàlla bindul dana xaw ci sa dund nag effort yooyu ci mën a def du tax loolu sotti mukk loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tabarkaala te dañoo toll jamono joo xam te nii daanaka nit ñi da ngay toog ba yàgg da ngay dangay dangay da ngay da jaaxle ndax bari na ci ñoo xam te nii jaa jaay nañ. Euh, cofeelu gu waajur jëme ci doomam ci alali àdduna nga xam ne yow sa doom dañ ko doon waxee waxtaan waxtaane yi euh, ci yi euh, passé nga xam ne bu njëkk sa doom daana la tàggu war a tukki jëm ci biir réew mi wala mu jëm ci bitim réew yow fan yu néew yi nga xam te ne nan nga toog te doo ko doo ko teg bët daana tax maanaam guddi guddi yooyu doo ko doo doo doo ko delaw léegi nag bu la sa doom ne am naa euh, passeport wala am naa visa da da ngay kontaan mbégte moo xam te ni maanaam daanaka jooy jooy sax da nga ko da nga ko def te jooy wala wala reetaan yi mbégte mbégte ne moom yow ñàkk gis gi nga nar gi nga narut a ñàkk rek gis sa sa doom ci at yi yii bànneex boobu da koy da fàtte la ngay gis rek mooy euh, la ci kanam muy alal àddina ji nga xam ne ni xay na yaa ngi koy séntu ci yaa ngi koy yaa ngi moom bokk na ci li nga xam ne ni euh, dama ne woon nañ ko tënk rek euh, ci tàmbali bi waaye li ma amoon yéene ñu waxtaane ko bokk na ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa bokk na ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ab yóbbal boo xam ne nii bàyyil nañu ko fi yóbbal boo xam ne nii mi ngi koy tuddee yóbbalu ndaw ñi yéen ndaw ñi yow mii di xale bu ndaw toll ci jàng. toll ci góorgóorlu war a war a war a liggéey na nga jàpp ne ndénkaan bii ak yóbbal bii may bëgg a jukki nii te suñu émission yi di ñëw ci kanam yëpp incha allah ci lañ fas yéene di waxtaan Sëñ Tuubaa di ko fa bind na nga jàpp ne yow yaa ko tax a jóg ab téere la boo xam ni titre bi mu ko bi mu ko tënkee tazawudu sixaar la ko tënkee muy yóbbalub ndaw ñi yéen jeunes yi yóbbal ndax yóbbal nag kuy tukki. da koy aajowoo par exemple boo dem boo doon dem di jël gaal gi da ngeen waaj da nga waaj euh, borom gaal gi dana waajal gaal dana waajal gaal gi yéen ñii euh, tukki ci biir gaal gi da ngeen waaj da ngeen am euh, lu ngeen lekk lu ngeen naan yu ngeen yóbbaale yoo xam ne nii ab yóbbal lañ lañ lañ lañ koy tuddee yóbbal bi Sëñ Tuubaa di di bàyyee xale yi nag yóbbal la boo xam ne nii yóbbal la bu ñu mën a dund ci àdduna bi ba keroog ñuy ñuy ñuy wuy seen borom. Euh, muy ba keroog ñu ñuy génn ñuy génn àddina rek muy yëbbal boo xam te ni boo ko jëlee xam ko xam ngi dana la jariñ ndax xam gi ak euh, xam-xam lay doon boo xam te nii ak leer lay doon te dana la leeralal ci lëndëm lëndëmi àdduna fi nga war a teg sa tànk ak fi nga euh, fi nga fi nga ko war a teg fi nga ko war a teg ab téere boo am solo boo xam te ni wax dëgg yàlla kenn ku nekk rek xam li ci sëñ bi. di jàngale waroon na tax nga dagg sa yitte yépp dem ci eh, fu ñu ko mën a jàngee donte dañ cee fay nga nga nga jàng ci ko nga jàng ko fa jar jar jar na ko eh, li mu li mu ko waxee rek sëriñ bi téere boobu mi ngi ko tàmbalee ci ginnaaw bi musloo ci seytaane eh, ñaan yàlla mu musal ko ci musal musal ko ci seytaane musal ko ci seytaane ak ak lépp lu euh, bëkk néegi seytaan yi maam ñi nga xam te ni seytaan seytaan seytaan da leen da leen da leen délégué ndax seytaane parfois dana délégué dana am ay ay ay bëkk néeg yoo xam te ni ñoom moom la ñuy liggéeyal yaa ayyuha allazina amanu laa tattabi'u xutuwaati seytaan yi wa man yattabi' xutuwaati seytaan yi alxuraan noonu la wax bu leen topp seytaane bu leen topp kuy topp jéegooy seytaane ndax kuy topp jéegooy seytaane rek euh, boo ko toppee seytaane nga topp ginnaaw bi mu ci yàlla mu mus ñaane yàlla mu musal ko ci seytaane ñaan ko mu musal ko ci buñ demee ba nga xam te ni nit ki ab diggam mu ngi teew foofu seytaane ñëw bëgg laa weddi law yàlla ba ba ba jamono jooju bu seytaane man man ci man man man ci moom dara ginnaaw bi mu musloo ci seytaane dafa ubbee téere bi ci bismillahi rahmaani rahim ci turu yàlla lay tàmbalee lépp lu muy def muy ay wax wala muy jëf wala lu mën a doon euh, ak melokaani yàlla suñu borom yi nga xam ne moom bokk na ci arrahman arrahim dafa euh, daal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wa sallallahu ala sayidina wa nga julli ci euh, yonente bi salmal ci moom ak waa këram ak saxaabaam danga nga musal ko te barkel ko waaye na doon julli ak sëlmal goo xam ni nii da nga ci wommate képp koo xam ni nii mi ngi jàng téere bii may bëgg taalif muy téere euh, tasawudu sixaar na nga ma nangul rek yow yàlla ci salaato wa salaam googu nga defal ma ci képp koo xamante ni jàng na téere bii salaatu wa salaam googu wommat ko jëme ko ci àjjana ja nga xam te ni moom nga dig waaye ragal yàlla ñi moom nga dig ñi ragal ñi ragal ñi ragal yàlla kon muy salaatu gu am solo goo xam te ni euh, sëriñ bi moom daanaka noonu lool loolu mooy ay yoo xam daanaka saa yu saa yu euh, ubbi téere wala muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana dana ci julli julli goo xam te ni dana ci ñaanaale ci biir euh, julli gi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaan goo xam te nii rek maanaam dana xewem loo euh, ki koy jàng waaye nag bokk na ci lim ci jul lim ci junju ñàngoo ko mi ngi koy ñaanal ki nar a jàng téere bii muy téereb tasawudus sixaar téere bi mu ngi ko tàmbalee ci bayit bi may bëgg a tudd muy yaqulu man lay sa yazaalu yaxmadu maalikahul abdul xadimu ahmadu euh, kii bëgg a wax wax jii day mooy ki nga xam ne musta dañ di sant yàlla boromam musta dañ di sant yàlla boromam waaye kooku mooy kan nekku fa di wax benn ci turam ndax xam nga Sëriñ Tuubaa ay turam yi dafa bari Xaadimu Rasuul bokk na ci Ahmadu Bamba bokk na ci wala euh, tur yu bare bari bari bari bokk na ci waaye bokk na ci tur yi nga xam ne moo bëgg moo gën a fees ci ay mbindam moom Sëriñ Tuubaa te gën ci euh, répété wu te mu bokk na ci li yi ko ci dàqal mooy tur yi may bëgg wax muy ala abdul xadim ala abdul xadim ala abdu ki nga xam ne ni jaamu yàlla la alxadimu di liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama te ñu koy wooye ahmadu mooy euh, fi mu ko daanee fi mu fi al abdul xadim ay melokaan la muy jaamu bu yàlla euh, nit ki euh, mbokk yi yàlla nit ki mun fa am grade bu euh, ci ci yàlla lu dul nekk ab jaam nekk ab jaamam grade bu ëpp doon jaamu yàlla nit ki mënu ko am ci ci yàlla grade boo mën am ci wàccuwaay boo mën a am ci ci ci yàlla bu gën a neex rawatina ñi xam yàlla ak nguuram nga ak màggaayam nga li lu leen gën a neex nekk ab jaamam nit ki nit wala yu yàlla yi ak borom xam-xam yi xamul xamul ko. waaye nag moom Sëñ Tuubaa bokk na ci li nga xam ne moom ñaari melokaan yooyu lay lay lay lay ci li ëpp ci ay mbindam mooy ala abdul xadim ala abdu gi bu ko waxee ci yàlla lay dellu alxadim di dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mu teg ca waxam jooju alhamdulilahi lazi li ahsana ihsana man lay yasalu muhsina mi ngi sant yàlla mi ngi xam te ni moo rafetal jëm ci man moom defal euh, teraanga moo rafetal jëm ci man rafetal koo xam ci nii musta dañ di rafetal di di rafetal di moom ji moom jëm ci moom loolu eh, ni mu ko waxee day tàmbali di sant yàlla ci ci ñaari eh, bayit yooyu yëpp boo xoolee sa ak sa ak sant yàlla feeñ feeñ feeñ na ci tawxiid feeñ na ci ci bayitu njëkk wi al ak cant feeñ feeñ na ci ci bay bayitu ñaareel wi ñett bayitu ñetteelu sax dana dana danañu feeñ ndax ndax dana ahmaduhu wa jaada bi tawxiid yi wa axawayhi sunnatul wahidi mi ngi sant yàlla mi nga xam te ni moo ko defal tawxid ndax xam ngeen mbokk yi lislaam ci ñett yi la tënku al iman al islaam al ihsan al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf waaye mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nii moo ko defal moo ko may mu am mu am tawxiid nga xam ne kon am na ak ak imaan goo xam te ni maam euh, seet na ko ci boppam ba mu mu wér ko ne yàlla defal na ko ko mu di ko ci sant waaye boo xoolee lépp da koy delloo ci yàlla ndax xam na ne nit ki li mu am lépp yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla koy maye rawatina sëriñ bi nga xam ne daanaka lépp lu muy lu lu wan ne am na ko rek da koy sant yàlla di ko delloo ci yàlla ngëneel li ngëneel lu am gi mu ko am mi ngi sant yàlla ci may gi mu ko may mu am taw xiit ak ñaari mbokki tawxiid yi muy alfiqh ak tasawuf wala sax ci geneen anam muy ñett mi ngi sant yàlla ci may gi nga ko may ñett yi muy al iman al islam al muy gëm yàlla ci ab xolam di ko jëfe ci ay ciram di sellal jëfin wa ca euh, na anam gën a gën a sell gën a sell waaye nag saa yu taggee yàlla sant ko lam cay teg rek mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax mu ne suma salaatu wa salaamu sarmada ala xalilihi alxabibi ahmada mi ngi eh, ñaan yàlla asalaatu wa daal gu sax ba faw yàlla nekk ci xaritam ba yàlla nekk ci soppam ba mooy ki ñuy wax ahmad te ahmad moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ndax bokk na ci turam yi Ahmad ndax boo xoolee Isa ibnu Maryam ba muy junj ba muy junj eh, dikkug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran wa id qaala Isa ibnu Maryam yaa bani Isa ibnu Maryam yaa bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min tawrati wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmad la waxoon kon eh, sëriñ bi bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaye. Eh, salaatu wasalaam boobu da koy da koy da koy yaatal fu mu ko fu mu ko defee moo tax mu ne wa alihi ma sahaabil muminin salaatu wasalaam boobu yàlla nekkaale ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nekkaale ci saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla ñooña ñu gëm yàlla ñooñu tey eh, muy al muminuna al muslimun al muhsinun al wa alihi ma sahaabil muminin al muhs al muslimin al kuramaa al muhsinin Euh, ñi nga xam ne ni euh, saxaabam yooyu nga xam ne ni dañoo gëm yàlla ci al iman doon ay muslimuna doon ay euh, mox moxsinoon moxsinoon waaye nag bi mu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaale waa kër yonte ak saxaaba yi dafay andi li ko tax a jóg ndax dañuy hada wa wa wa nazamtuhu muqaddama urjusatan nafiatan mukarrama mu ne euh, lii may bëgg a wax kat maa ngi koy way di way woo xam te ni ma koy jiital rek way woo xam te ni aw rajas lay doon nga xam ne ci ci ci euh, baxru rajas ci laa ci la ci laa ci laa ci laa koy ci laa koy wayee waaye nag mu doon way woo xam te ni bu am njariñ lay doon way woo xam te ni wu ñu teral lay doon wu ñu ñu teral la tey tamit nga xam ne maam wu tedd wu tedd la yow mi may jàngal téereb tasawudu sixaar bi boo ko jàppee na nga xam ne jàpp nga ci way woo xam ci nii way wu am njariñ la way wu tedd la te ku jàpp ci lu am njariñ njariñu ku jàpp ci lu tedd mu teeral mu te mu te mu te mu teeral la mu teeral ndax bokk na ci li nga xam ne nii war naa tax ndaw ñi xeemeem téere bi sax tudde gim leen ko gim leen ko gim leen ko tuddee wax dëgg yàlla bu ko tudde woon téere téere paay sax te ndaw ñi gis ci seen njariñ war ko war ko war koo xeemeem waaye nag mu bañ ba jël turu xale yi ak euh, jeunes yi tudd leen téere bi loolu war nañ leen encouragé ci ñu jàng euh, téere bi ak xam li mu ci dëxañ ci ay njariñ ak lu ñu ci war a jëfe ak lu ci war lu lu lu lu ci ki war a mën a jaarale ba leeral aw yo ak ak ak dundam daal moo tax ma ne samaytuhu tazawud as-sighar yi téere bi mi ngi ko tuddee tazawud as-sighar tazawud as-sighar boo ko waxee mooy yëbbalub ndaw ñi ndax nit ki moom ni mu ko waxee rek. kuy tukki tukki bu sori war ngaa wutub yëbbal war ngaa wutub yëbbal yëbbal boo xam ne ci ngay lekk ci ngay naan war ngaa wutub yëbbal ci loo xam ne nii xëy na maanaam euh, boo wàccoon ci am réew sax xanaa da nga da nga wut foofu foofu foofu naan même tukki yi tukki tukki yu normal yu normal yu normal yi nii sax booy tukki nii boo jëmee ci réew moo xam ci nii euh, xamoo fa kenn dañ lay laaj argent argent de poche loolu ñuy wax argent de poche nga xam ne maam dañuy xam ne dañuy bañ boo demee ba ci réew ma nga fay nga fay tumurànke waaye nag sëriñ bi moom dafa jàpp ne dund ko àdduna gi moom ab tukki la rek tukki boo xam ne ni maam ba nga juddoo la tukki ba tàmbali ba ngay génn àdduna ñu war laa def fa la tukki ba yem fa la tukki ba yem mu yàggee képp ku ci nekk war ngaa euh, soxlawu ab yóbbal te kenn euh, euh, amu ci yóbbal bu ëpp xam-xam xam li nga war a def xam li nga war a bàyyi xam ni nga war a jàpp yàlla xam ni nga war a jaamu yàlla xam ni ngay doxee ci àddina lépp looy def nga tër ko ci xam-xam bala ngaa jël gaal gi nga jàngat ko ci xam bala ngaa euh, wor sa morom wala nga jëflante loo xam ci ni dana lor sa morom euh, nga xool ci xam-xam lan la ci yàlla wax lan lan lan lan lan euh, moo cay ngërëmul yàlla ak lan moo cay meram meram meram meram yàlla nga di ko nga def loolu mooy sam nattuwaay nattuwaay nattuwaay daal waaye nit ki loo xamul. doo ko mën a xemem mba di ko ba di ba di ci sawar loo xamul lor ja ci nekk doo ko mën a ragal ba di ko moytu na nga ko na nga ko na nga ko na nga war a na ko war a moytoo moo tax mu ne wallahu rabbi asalul qabula wal na wa safaa wa tabjila yàlla su borom laay ñaan day mu defal ma ak nangu maam euh, téere bi may def di ko tuddee tasawudu si xaar yàlla na ma ko yàlla defal muy lu euh, muy muy muy lu ñu nangu yàlla lay ñaan mu defal man ak nangul mu nangul ma man sëñ Tuubaa defal ma ak loolu ñuy wax al am nu muy muy euh, kóolute muy euh, sécurité euh, may ma ak safa muy ak sellal ak ak ak tab ak tabjil muy ak ak ak màggal maanaam loolu mi ngi koy ñaan mi ngi ko mi ngi koy ñaanale ci njëlbeenu téere gi téere bi bala bala moo dugg ci li ko tax a jóg waaye téere bi moom téere bi xam-xam la téere bi xam-xam la loo xam ci nii maanaam yow mi koy euh, jàng am na xam-xam yu ci sëriñ bi di wax lu bari yoo xam ne nii lu la amal njariñ la lépp sax lu la amal lu la amal njariñ la lépp rek lu la amal njariñ la ndax dana la war a wan wan yow yaay kan ak yàlla mooy kan ak lan nga doon ci yàlla ak yàlla lan lan lan la doon ci yow ak lan moo tax yàlla indi la fii ci àdduna bi def la lim la def ak it euh, yan jafe-jafe la la booleel ci àdduna bi ba nga xam te nii maanaam boo deful attention rek da nga def euh, faux faux pas ndax. seytaane la la booleel seytaane seytaane la ñu yàlla su borom booleel te seytaane moom du yokkat mukk moom du du yokkat mukk nam ko diggee woon ci alxuraan fa rabbi fa bi ma axwaytanii la aqudanna lahum siraataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin la ko waxoon yow yàlla moom ah, xam naa ne kattan gi nga gi ma gi nga ma gi may man seytaane xam nga seytaane sax nangu nangu la foofu yàlla xamal ne yàlla moo ko beewal moo ko moo ko beewal ba lim man ci doomu adama yi mu man ko ndax fa bi ma axoyte ni la ko wax fa bi ma axoyte nii ci euh, force bu ma defal ci ci beew gi ma beewal la aqon dana lahum siraatakal mustaqim danaa leen jàddloo yow sa yoonu yow yàlla suñu borom danaa leen dikke côté bu nekk su ma laa dee na hum bayna aydihim daa leen fi ñëwee ci seen kanam buñ buñ ma féete kanam ma ñëwee leen ci ginnaaw buñ ma féete ginnaaw ma ñëwee leen gauche ak droite côté bu nekk rek naa da da danaa danaa leen fi ñëwee danaa leen fi kon nit kii na nga war a def ba moytu seytaane foofu ak te eh, xam seetaanee bu la mënee lor yam la mën a jural sa diggante sa borom dana tax nga nga moytu ko boo xamee it yiw wala nekkal ci def la la la yàlla digal dana tax nga sawar ci def def def def nga. mi ngi ñaan it wa kaw ne haza nazmi qaidan ila sabilihi al aqwami kulla man tala mi ngi ñaan ne képp koo xam te ni jàng nga euh, mbind mi way wi may bëgg bëgg bind man Sëñ Tuubaa mu doon loo xam te ni dalay wommat jàng gi nga ko jàng dalay wommat teg la ci yoon wa gën a jub yoonu yàlla wa gën a jub mu teg la ca xam gi ko xam euh, euh, xam-xam bi mu def ci téere bi boo ko jàngee yow mi ko jàng mu teg la ci yoon wa gën a jub boo xam te ni la neex yàlla rek ngay def lépp lu yàlla gërëmul rek doo ci doo doo ko doo ko sax bëgg bëgg bëgg ci sa xol te doo ànd ak mukk seytaane ci ay bëgg-bëggam moo tax mu ne wa kaw ne xoo saadata sibyaani wa shibi wa shubbaani wa niswaani mi ngi ñaan yàlla it mu def téere bii mu doon texe xale yi mu doon texe seenu texe nga xanaam ci la ci yàlla di jaarale seenu texe texe ak àdduna yàlla it waaye euh, sëriñ bi dafa baax dafa dafa labir ñaan euh, ba mu xamee ne euh, yóbbulum ndaw ñi la ko defoon sax waaye mi ngi ciy ñaanaale waxambaane wa shiibi maanaam waxambaane yi sax na doon seenu texe astaghfirullah bu ne wa shiibi ak euh, waxuma la ndaw ñi waaye ñibbi jaaw ñi mag mag ñi waaye wa shiibi wa shubbaane ak waxambaane yit it na doon seenu seenu texe mooy ñett état yi ndax nit ki moom da ngay doon ab xale wala nga doon waxambaane wala nga doon am mag waaye kum mën a doon rek. mi ngi ñaan yàlla téere bi na doon sababu sak sak sak sak sak taxe jàng ngay jàng téere bi waaye nag wan niswaan yi ak jigéen ñi it maanaam nekkul di ñaanal góor ñi rek waaye jigéen ñi it yéen a ngi ci biir ña ci biir ci biir ci biir ci biir ñaan googu ci lan na ne hada awaanu lin siraafi lil maram wajhu bi lan siram foofu lay wëlbati ko nag jëme ci li ko tax euh, euh, téere euh, tasawudu sixaar boobu te dara waral ko it lu dul euh, jëmmi yàlla am ci ngërëmal yàlla am ci am ci yàlla moo ko moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy yéeneem mooy yéeneem ci bind gi mu ko bind am ci yàlla ci nit ñi mën cee jaar ba ja ba ba ba jariñ ba jariñu ci ñu ngi wax ne xam naa ne li des ci waxtu yu bariwul ñu ngi nit ñu mbokki taalibe bi yëpp rawatina sunu mbokk yi ca mande sëñ góor mi ngi wax léegi ne na mbokkum mu taalibe mu tudd sëñ Birane Gueye ca mand moom tamit mi ngi yónni nuyoo ñu ngi koy nuyu lu bari di nuyu tamit suñu mbokkum taalibe yaat yaat ma juuf ma waxtu waxtu nekk rek mi topp waxtaane moom tamit di mbokki saalum ca mand moom tamit ak mbooleem mbokki taalibe yi fu ñu mën nekk rek ci àddina bi Tuuba euh, réew fu ñu mën nekk rek ñu ngi ñaan yàlla su borom mu barkeel suñu làmmiñ ba nga xam te nii euh, wax ji jaar gi muy jaar ci suñu làmmiñ dana barkeel ba nga xam te nii nopp yu mu dugg euh, dana am lu mu fa yokk dana am ñu xam naa ne xëy na bari na ñoo xam ci ni sax li ñuy wax ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ko gën a gën a xam waaye la ci suñu suñu yéene rek mooy euh, laabirante ci mbindum sëriñ bi gën cee dolli jariñu ko jariñu ci wax gi ñu koy wax ci liñ ci xam waaye euh, képp ko xam ne wax ji agsi na ci yow euh, te am loo mën a jariñoo rek nga yàlla su moroom jariñ la ca di di di dégg nga allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu ñu ngi sant yàlla bu baax wax tubarkalla ni ñu ko baaxoo defal di nuyu suñuy euh, waajur ak suñu mbokk yi ci Sénégal gépp di nuyu mboolem mbokk taalibe di ñaan ñi nga xam te ni seen bakkan euh, des na ci euh, yoon wi yàlla su borom defal leen yërmande ak njëggal ñi nga xam te ni ñu ngi góorgóorlu yàlla su borom barkeel seen i seen i seeni i seen i lépp loo xam te ni nit ki yéene na ko rek. yàlla na ko suñu borom kàttanal ba ba ba mottali yéen a yooyu yéen a jooju lépp loo xam ne nii waajur yéen ne ko doomam it yàlla na ko suñu borom euh, ba ba ba ba benn yaakaar tas daal ñu ngi koy ñaan bu baax a baax tubarkalla di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.